doo sant dab daan parce que ci avance dab daan xam naa ni ci dab daan da ngaa jóge ci da laal avance dab daan rek yàlla suñ boro ubbi yeneen bunt daa mel war nga koo sant. non dab daan non dab daan moo wuyu ma ji la man nag. la ubbi la ko non dab daan man la war a sant. ci ci avance contrat nga nekk yaa dab daan am place bu bees. doo sant dab daan waaw dab daan la war a sant newul ndax. ndax dab daan kenn xamagoon ci làmb. dab daan doo dugg site internet bi nu turam xamu mu génn. billaay wala bi dab daal man la mës a billaay ma la xam ma la xam ma ma la ko war a bëreel isaan ba dégg si internet yi xam nga di ko seet si xam nga xam nga xam nga boo duggee YouTube bind turam muy soog a ñëw dab daal ma la war a sant jiile. léegi yow suñu waxtaanee mbokk internet yi ñu ngi ñooy seetaan sa diggante yàlla avance bi nga jël yaa dab daan fukki dërëm duggul ci ci place bi. non avance boobu matul dara lay avance boobu noonu jiile. waaw barke sëñ Ba matul dara. waaw dërëm fukki dërëm. dugg ci place fikki dërëm dugg si. lii yëpp maa ko ñàkk man. mais làmb xaalis làmb. non xaasul yàlla moo xam ne lii xaalis làmb dugg si. jiili ma lii maa ko ñàkk. waa Colobane jàppale ma. Mhm. ak waa Petersen. Mhm. ndax man seen laa débuté. Mhm. di wanteer. heure su ma mee combat di ma jàppale isa may dégg. après ma dem fee Colobane ut fa place di dóor place boobu nag moo may lii tay Colobane dëgg yàlla. ku dee. ak sa bàmmeel Colobane moom may lii waa Meedu làmb sama liggéey moo ma ko may waaw. Euh, corona bi dafa dugg si ma gis mbaytin sa diggante yaag dab daan keroog jàkkaarloo bi ma ñëwoon ma gis beneen état de forme boo xamante ne xale bi yor na ko lan la sa diggante yaag euh, daam su ngeen numéro 2 état bi nga indi woon dafa baaxul nga daan ko ci jàpp ne état bi baaxul wala dab daan moo laaj nga yokk poids bi. waa nekkul dab daan de. ndax tey jii man dama war a bëreeg dab daan daan ko bëreeg samay mag si làmb. dab daan meen na. la dëggee numéro ku mu bëreel nga xam ne kii dafa la dëggee numéro 2 gis ma xool ma ne ma yow xam mun ngaa lekk lu na ci làmb xam nga comme sa maas bi da ko war a yokk def ko doole. liin nii yëpp moom la ji li du la man waaw mooy loolu quoi. mais la dëggee 2 barki yonent yàlla moo xam ne lii yëpp moom la. moom mooy yóbbu saal di ma fayal di ma jox protéine di ma jox ay vitamine may naan may entraîner bu baax di ànd ak moom matin ak soir. isa may dégg en di may xama xam ma xama di ma jàppale di ma conseiller ci lu bari jili mais dab daan moom billaay wallaay bu arbu ne prib dina li ma liggéey du pour moom jili non jili jili bi daa waroon gaaw jeex rek. kon ko ngeen. Sëriñ Bamba tàqal nañ bu jëflante. billaahi wala du ma ko may dara fu mu nekk ma fekk ko fa. li may seetlu mooy dafa mel ni xamoo dab daan wala da nga koo ci masse bi mu yor masse musculaire bi mu yor dafa mel ni mbaytin da nga ko xeeb trop. non jilu xew ma ko de. ni ngay waxee da ko xeeb bu arbitre ne prime ma jëflante woo nga ma fi ñu waxtaan man a yow nga ne ma bu ma ko yanul ba ci kaw dóor ci suuf daan ma ko. maanaam jil dab daan dafa bëri wax. daf may woo téléphone moom si boppam. barki baam Bamba. xam nga ñoo bokk groupe daf may woo téléphone di moo wax lu ne ak gaane mi <laughs> benn booy bu muy àndal. xam man leen <laughs> non di ma woo naan mbéytin ba xam yaay waaja man liggéey leen <laughs> man leen liggéey leen man man leen liggéey leen yéen def ni daanu ma. waaw man mooy loolu quoi man entraînement bu wóor moo may daan mais du ay musique ay texel non hmm. waaw. waa waaw jëli musique lu koy def du xaalis ah man commerçant ñu may jàppale nam ma dara su ma bëggee dem voyage ka Casamance léegi leen sa benn commerçant laay woo ña ko suba dama dem voyage jox ma lu bari ma dem barke Serigne Bamba dab daal damaa bëgg mu dal jàmm waaw ah, te xam ni am na combat. Caatu Yaraax da koo moo ko mujjee daan si defar lay delluwaat incha allah.